jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee kii ñu toogal nga xam ni kilifa la ci réew mi nga xamante ne mooy Gàmbi mu jógee Gàmbi ñëw fii ci réew mi nga xamante ne mooy Sénégal te bu ñu nee Sénégal ak Gàmbi benn bopp la waaye kenn mënu koo xaj ñaar actuellement nag ñaari ministre des dañu war a laale. muy ministre des sports bu Gambie ak bu Sénégal ndax kii moo jiite kuréel bi nga xamante ni mooy Gambie muy Bakary Badji mu nekk koo xamante ni vraiment moo yor sport bu Gambie ba mu ko yoree ba tey macha allah li bari na liggéey yoo xamante ni liggéey na ko fa macha allah wolof daf ne ku yokkul yaa wàññi moo diggante mag jam production nag diggante bu yàgg la ndax bu ngeen fàttalikoo bu ñu delloo ginnaaw tuuti bàyyi ma njoon xoyantaan combat spécial bi moom mii lañ ko duppee te bañ ko koy duppee woon sax amaana boobu nekkagul ministre waaye gis nga ba ko ba bis bi ñëwaatee mu doon nekk ma Mandione Khoyantane ñu indi retour bi fii ci Sénégal bis boobu tamit moom mu yor li nga xamante ne mooy wàll sport bi jàppale Baye Khoyantane ci lu baree baree bare dégg nañ ndimbal yi nga xamante ni jël na ko en tant que ministre jàppale ko xale bi nga xamante ni doomi réewam la te loolu la ñu bëgg ci sport bi te loolu la ñuy séentu ci ñoom ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi nuyu mbokki Sénégal nuyu mbokk Gambie nuyu mbokki àdduna bi yëpp su ko defee ñëwee waxtaan monsieur le ministre maa ngi nuyu bu baax. waaw fay nañ la jërëjëf euh, maa ngi nuyu ñëpp of course euh, euh, nuyu jaam Jamaïcain ak ñi nga xam ne ñoo ngi la àndal ci bëre bi. of course euh, comme ñu ngi Sénégal dinañ nuyu ki nga xam ne ni mooy président euh, Macky Sall. Mm. ki nga xam ne ni itam mooy suma naatango ministre of euh, sport. Mm. di Matar Matar Ba. Mm. ak ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngi ci fraternité sport bi spécialisé ci wàllum làmb. nuyu sénégalais yëpp nuyu Gambien yi nga xam ne nii ñooy topp làmb ñooy topp sport ci Sénégambien. ministre noo gisee sport Gambie rawatina làmb. ah well non sport bi mu ngi dem kanam. xam nga ci at yële passé woon amoon nañ ay jafe-jafe ci wàllum sport bi waaye fi mu nekk nii. Hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax parce que li nga xam ne ni moom lañ bëgg ci wàllum sport. Hmm. Ah, nguur gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a liggéey ñu ngi cee def seen waar. Hmm. pour gis ne li nga xam ne ni mooy sport dem na kanam. te sport du benn bi rek ah, sport si yëpp. muy football wala basketball wala volley. wala li nga xam ne ni mooy làmb euh, li nga xam ne ni mooy wat matuwaay yi ñu ci war a def pour gis ne jëm na kanam ci wàllum infrastructure mm. waaye ci wàllum tamit jàppale ñi nga xam ne ni ñoo ci nekk mm. euh, ñu ngi koo def te gis nañ ci ndam yu bare bare ci at yi passé waaye rawatina ci jamono ji nga xam ne moom lañ nekk mm. wécceeku gu bari moo nekk di xew ci wàllum euh, sport ak jëm kanami sport ci biir Gambie Jamaïcain dafa tëggoon Baye Mandione xoyantaan yóbbu ko Gambie mu nekkoon bis boo xamante ne événement bu rëy la woon biir Gambie. Mhm. ñu tuddee la woon la combat spécial bi. bi ñu koy bi ñu la koy tuddee deuxième combat bi ku la waxoon dina nekk ministre boobu di di xalaatoon nga ko. <laughs> ah non de xalaatuñ ko am nga fi yàlla la rek. parce que comme ni ñu ko waxee man moom. Euh, ci fi ndaw ñi ak ci sport laa yàgg a yëngu. Mm. Euh, mu nekk loo xam ne lu mu bëggoon la te mm. bi ma dem school ba ba moo jeexal. Mm. Euh, ci loolu laa nekk. bi ma tukkee tamit nekk États-Unis tamit ma ngi doon jàppale ñi nga xam ne ni ñoo nekk sport. ci benn ci yooyu comme li nga waxoon mooy bëre bi nga xam ne ni moo xewoon. jamono jooju sax nekkuma woon Gambie waaye nag suma loxo mu ngi woon ci fii sport so yàlla def nag um, ñu président uh, ki nga xam ne nii mooy suma boos di uh, Mr Barrow président Adama Barrow oo moom pour mu ñëw nekk ministre. Uh, mm-hmm. jamono jooju nag bu ñu koo def xalaatuñu ci woon ne dinañ dem ba nekk ministre. bugg mm-hmm. bugga bugg la woon mu nekk li ñu doon def. Mm-hmm. waaye tamit jamono moo mel noonu. nit ki na mën ngaa nekk ci dara. Euh, nga koo def rek ngir bëgg a nag keneen mu ngi toog fenn mu ngi laa xool mu ngi laa bàyyi xel hmm. euh, bu jamono jotee nag mun nañ laa wax ne kaay ñu jox la place bi nga euh, li nga daan def ci sa bopp jël alali nguur dugal ko ci pour mu gën a dem kanam so hmm. loolu moo xew te ñu ngi see sant yàlla bu baax a baax hmm. di ci gërëm ki nga xam ne nii mooy président ci óolute bi gërëm Gambien si especially ñu nekk ci wàllum sport ci support ak jàppale bi nga xam ne nii moom la ñu nekk di jàppale depuis bu ñu ma appointé ci at bi nga xam ne mooy Gambie a ñëw Sénégal jongante koo xam ne ndaanaan la muy ma Mandione dégg nañ sax ndimbal yi nga xam ne jot nga leen ko jox jàppale ko mu mel ni kon yow suma juumul ministre boobu xoyantaan mooy sa mbër ah waaw waaw fu mu nekk nii noo xam nga boo nekkee ministre moom ah. daanaka ñëpp nga ñëpp nga fa nekkal ah. Ah, te comme li ñu waxoon rek Euh, ñi luñ bëgg a mooy pour sport dem kanam mm-hmm. te nag bu ñu amee ndawi Gambien boo xam ne nii farnu la ci li moo def mm-hmm. euh, def ci fayda def ci fula euh, jël alalam ak dooleem yëpp def ko ci mm-hmm. li war ci nguur mooy pour mu jàppale ko so noonu lañ ko gisee so moo tax moom bi moo jóg nag ne dafa ñëw bëre ci Sénégal comme nu Baye Mandione ñëwoon Gambie gars yi booy foofu Euh, li war si ñun mooy pour ñu jàppale waaye waaw moom mooy nekkal suñ euh, roi des arènes si jamono ji mm-hmm. te roi nag moom dañ ko war a jàppale so mm-hmm. ci loolu la parce que ndam li euh, dina nekk ndam su ndami boppam waaye ndami Gambie la mm-hmm. wala sax mun a ñëw ne ndami Sénégambie la so képp koo xam ne nii war nga cee mën a def dara dañ ko ci def so loolu lañ nekk di def rek wan uh, of course waaw euh, suñ bër la so luñ ko ñaanal mooy pour mu am ndam biir Sénégal. Hmm. mu daan mu daan mbëru ah, Sénégal bi yóbbu ndam li loolu lañ bëgg a de loolu kañ moom euh, buñ buñ séddoo ndam li ba pare. Euh. li ci gën a duuf. Hmm. Gambie ko war a moom de. mataar dafa bëgg a jàppale mu Mandione ba roi des arènes Gambie. mu hmm. récupérer ko indi ko biir Sénégal di ko ko bàyyi. <laughs> ah non ko mën a bàyyi Matar suma mag la. suma suma xarit la waaye nag bii moom. moom itamit dafaa xam ne rek diggante ñaari réew yi la te jongante la. Hmm. Euh, moom li ñoo wax rek moom na wax gaay mi ñu bàyyee ñu ko rek. Hmm. Euh, loolu moo ngi gënal waaye nag. Euh, bëre la yi fi fola euh, euh, wiin la ak ndam la ak ñàkk la rek waaye li si gën a am solo mooy jàmm ji nga xam ne ni moo diggante nekk diggante ñaari réew yi hmm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci sport bi tamit war nañ ko mën a gën rafetal te loolu la ñoo wax rek bu lépp paase ñun ñëpp benn hmm. la su ñoo nekk ci biir arène bi foofu noonu ku nekk di nga bëgg am ndam hmm. fans yi dinañ bëgg ki ñoo support mu am ndam waaye ñi luñ bëgg am mooy rek nañ dalal xel yi xam ne rek yi fi fo la waaye nag of course ndam bi war naa mën a ñëw Gambie. Jam production lëkkaloog Luc Nicolaï Enco ci bis boobu ci la daje bu rëy combat royal bi dox ci diggante Ama Balde ak Modou mu nekk combat boo xamante ne àdduna bi ñëpp ñu ngi koy xaar. dëkk bu nekk bu sañoon tey ñu defee ko dëkkam ba rawatina yéen Gambien yi ban taxawaay ngeen ci am ak lan lan ngeen ci bëgg ci bis boobu. bon lañ ci bëgg rek euh, waxtaan nañ ko lig parce que moom bi mu amee xalaat bi ñëwoon na Gambie. Hmm. Euh, amoon nañ euh, benn meeting bu ndaw mu hmm. waxoon nañu xalaatam mooy pour seet naka la moo andee bore bi Gambie. mu hmm. nekk na loo xam ne nii nag luñ rafetlu la. parce que am na jamono yëpp passé yu ba yàgg a yàgg nga xam ne nii temps boobu sax man maa ngi nekk ndaw. Hmm. Euh, lig andi woon naa bëre foofu. diggante Tyson ak. Mor Fadam la woon waaw Tyson ak Mor Fadam. mu nekkoon lu rafet. Euh, hmm. depuis booba nag loolu gëj naa am. Hmm. so bi mu ñëwee loolu laa ko wax ma ne ko bu demee bi xalaat pour andiwaat lu mel noonu. Euh, ñun war nañ ko mën a jàppale te incha allah dinañ liggéey ak moom. bu demee ba gis ne. Euh, am na agreement d'accord bi nga xam ne def na ko diggante moom ak euh, Gambia Wrestling Association bi bu mm. Gambie mm. Euh, ñun dinañ ci def li nga xam ne moom lañ ci war a def ci matuwaay pour gis ne bëre bi am na Gambie ci anam bu rafet boo xam ne noonu lañ ko buggee su ko mm. defee dafaa gën a jokkale ñaari réew yi rek yooyu yombal tamit dem be dikk bi diggante Gambie ak Sénégal so waxtaan nañ ci ak moom te mu ngi wax ne dina ñëwaat Gambie comme decidé comme maanaam Euh, finaliser gu ndax dina ko fa def wala déedéet. Mm. Euh, li ci war moom dañ ko wax rek dinañ ko def. Euh, mm. ñun nguur comme ni ma ko waxee woon rek liy yóbbu sport kanam. Mm. pare nañ pour def ko as far am nañ matuwaay pour def ko te incha allah bii ci benn boobu la waaye ñu ngi ko rafetlu bu baax parce bés bu xoyantaan di bëri ak. ci nu mu tuddaati Baye Mandiol bis mm. boobu tamit la seen face à face bi fii mm. so mu nekk loo xam ne nii dafa tax ambiance bi gën a ne mm. um, so lu si gën a lu si des moom dinañ ko def xale bi di jamaïcain nekk xale bokk na ci xale yi gën a doon bokk na ci promoteur yi gën a nekk xale fii ci Sénégal ah. ban ñaax nga koy gën a ñaax ak seen diggante yéen ñaar lan la non kenn waaw suñ suñ nit la. suñ hmm. euh, liggéeyandoor la. Hmm. te comme ni mu ko waxee euh, wala ni mu ko waxee bokk na si ñoo xam ne ñoo gën a ndaw fii. Hmm. waaye tamit bokk na si ñoo xam ne ñoo gën a ndaw Gambie. parce que euh, Gambie ñu si jëm gën a bëri ñuy promoteur ay ndaw lañ waaye moom yaakaar naa. probablement bu si gën a ndaw yi bokk na si ñu gën a nekk féetoo ndaw. waaye nag yi fi jom la rek parce que yi fi liggéey ak. tekki nekkut euh, mag ak xale ku nekk war nga koo mën a def boo farloo hmm. pare pour liggéey euh, topp si ñi nga xam ne ni ñoo la jiitu ci yëf yi ñu jàngal la woon la noo ko defee hmm. yooyu tamit di nga match bi nga xam ne ni mën ngaa raw sax ñi nga xam ne ni ñoo ñoo ñoo nga fa fekk hmm. so moom loolu lañ gis mu ngi tëg a tëg euh, làmb yoo xam ne nii yu gën a am solo la yu gën a am doole mbër yu mag Gambie la dee tëga te Sénégal yi tamit noonu la luñ ko wax rek mooy mu jàpp ci parce que ci yoon la nekk bu ñoom ñoom lig na ko laay ak ñoom Gaston Mbengue ak ñooñu ñëpp bu demee ba nekkatuñ ci bëre bi wala bu demee ba mag ba bàyyi euh, ñoom lay ñaakaar na ñoom ñooy jël kon nag mm-hmm. lu ñu leen di ñaax rek mooy euh, jàpp si lu ñu jàpp euh, continuer di liggéey continuer di jënd saaku xam-xam mm-hmm. ak support ak investment ci kanam nag rawli bot mm-hmm. ñun moom loolu rek lañ leen mën a wax xam nañ ne ko am fayda la te bëgg na li moo def so loolu rek lañ ko wax ñaax ko pour mu continuer ci loolu bu jëlee drapeau tuddee Sénégal ak Gambie lëkkaloo bu rafet bi nga xamante ni am nañu ko. déggoo bi ñu am ci seen biir ba tax ñaari ministres yi ñu ngi leen di séntu jouru làmb ja ñu ñëw ànd joxe drapeau bi. Mhm. jouru làmb ji dina la fi fekk. waaw loolu lañ bëgg euh, comme man maa ngi fii Dakar te sax laa war a dem waaye euh, dinañ euh, fexe pour gis ne delsiwaat nañ. Hmm. next weekend bi pour ñëw fekkee si. Hmm. yi fi government la nag yéenay am na yeneen yoo xam ne xëy na mu ngi xaar Banjul. soo hmm. mënuñoo wax définitivement dinañ ñëw waaye yéene bi mu fa. pour gis ne dinañ try naka la ñëw mën a ñëwee. waaye Gambien si ñoom dinañ ñëw te wax nañ ma xoyantaan bi mu ñëwee ci kër gi moom ak manager bi ma taar seen. waxoon nañ ma ne bëgg nañ pour ñu ñëw te hmm. waxoon naa leen foofu ne leen ne dinaa ñëw waaye jamono jooju na fekk xaw ma woon ne tamit dama war a ñëw Dakar. Hmm. waaye comme ñëw naa fi nag def nañ nañ try pour euh, seet naka la ñoo dellusee. Hmm. Euh, next weekend waaye li nga wax tamit mooy dëgg. Euh, Jamaican. Euh, kenn la mën na wax ne ambassadeur la. Mm-hmm. parce que sénégambienne la. te lii moo def nii dafa tax diggante Gambie ak Sénégal mu gën a rata. Mm-hmm. Euh, ñaari président yi euh, président Barrow. président Macky Sall mm-hmm. ñoom magaraka lañ. bari bëri la ñoo jokkaloo man ma ak Matar noonu lañ mel. te loolu ci wàllum politique ak wàllum doxal nguur la. noonu lañ bëgg tamit sénégalais yi tamit continuer mel noonu digganteeñ ak Gambie. te sport lenn loo xam ne nii luy mën a gën a yéwénal ñaari diggante yi. soo jëmee kan mu nga ci loolu di ko sant bu baax a baax ci liggéey boobu. travail pour ñëw fekkee bi nga bëre bi nga xam ne mooy xew diggante euh, suñ ñaari mbër yi Gambie ak Sénégal. Euh, tey ñu gis xoyantaan mbër mu mel ni moom war a départ Gambie ñëw Sénégal ñaata bis ak ñaata ci mobilisation hmm. lan ngeen war a mën a def ba mu ñëw bu feesalee stade bi parce dégg naa jàpp nga ci bu baax a baax. waaw waaw waajur waa ci ci jàppale bi la bokk parce que comme mm. li ma waxee woon xoyantaan euh, suñ roi des arènes la mu ngi ñëw Sénégal. Mm. te Gambien yi bugg nañ ko lool te wane nañ ne bugg nañoo ànd seeg moom ñëw jàppale ko ci bésam bi nga xam ne nii. Mm. Euh, daanaka si ñoo wax bokk na si bés yi gën a màgg. ci boreem ci carrière am. Euh, so ñun luñ ci def rek mooy jox leen boos parce que wax nañ bugg nañ boos yu bari waaye jox nañ leen juróomi boos yoo xam ne nii dina andi Gambien yi Serekunda. ak boori Farafeñe dina am boos yi fa nekk. Hmm. ñoo xam ne ni bëgg nañoo ñëw mu indi leen frie ñu ñëw euh, su ñëwee ñu jënd seen billet dugg a dem seetaan. Hmm. waaye comme li wax rek lépp lu tax ñu def ko mooy ñaar yëf la benn bi mooy euh, bugga li ñoo def. Hmm. mooy wàllum bëre pour mu dem kanam. waaye tamit ñaareel ba suñ ndaw mooy jógee Gambie war a ñëw Sénégal bëre ci te ñu xam ne am na fans yi nga xam ne nii nuñ leen a bàyyi gannaaw. loolu moo tax ñu jàppale leen te ñoom rek xëy na. mën nañ koo def sax waaye xëy na daf doon jafe nombre bi ñu bëggoon pour mu ñëw du mun a duñ ko mën a andi. Mm. loolu moo tax ñu jox leen bourses yooyu noonu. Mm. Euh, pour ñu mun a ñëw jàppale ci euh, bés bi. tamit jàppale ki nga xam ne nii mooy Jamaïcain. Euh, ci li nga xam ne loolu la nekk parce que ñëw. Euh, mën ngaa dugg ci boos nga ñëw free doo fay. Hmm. waaye boo ñëwee ba ci bunta bi di nga jënd ticket pour dugg. Hmm. loolu yëpp euh, income la support la pour ki nga xam ne nii moom mooy euh, promoteur bi nga xam ne nii moo oote bés. Hmm. suñu papa Ba dégg nga li nga xamante ni moom la ministre des sports bu Gambie wax jën na lu toll ci juróomi bis. jox ko ki nga xamante ni mooy xoyantaan ngir jàppale ko ci bis bi yow ñu ngi lay xaar nga jàppale ki nga xamante ni mooy ma Mandione yaakaar naa ni ñoom ñaar ñëpp ay ay doomi Sénégal bi lañ waaye rawatina Baye Mandione mi nga xamante ne day waree fii ci réew mi di defendre couleur réew mi ku ci nekk di défendre li nga xamante ne mooy couleur réewam ngir diggante Gambie ak Sénégal gën a ratax am na ci leneen loo xamante ne xew na ci mooy bëgg nañ bis ba boo ñëwee incha allahu rabbi ñu jébbal la drapeau bi nga xamante ne ñaari ndaanaan yi ñoo koy bëree ku ci daan rek nga yëkkati drapeau bi jébbal ko ko. Mm-hmm. Mm, loolu noo ko gisee tamit. wala ñu rafetlu ko bu baax loolu teraanga jamaïcaine joxe na ko te hmm. ñu rafetlu ko lool. Hmm. parce que dëgg la nit ñi nit ñi bëri nañ. Hmm. Ah, du yëfi place bi rek. waaye ah, bu demee ba tànn ne man su ma ñëwee man maa jël drapeau bi joxe. dinañ ko rafetlu di ko gërëm bu baax di mm-hmm. yaakaar ne rek euh, dinañ ñëw ci bés ba su ko defee ñu mën a def loolu mm-hmm. waaye ñaanal ko mm-hmm. euh, ne bés ba yal nañ ko fekkee ci jàmm li nga xam ne ni moo ci war yàlla nañ ko am li xam ne ni moom itam loolu la ci séntu yàlla na ko ko yàlla may euh, loolu la ñoo wax di rima fàttaliwaat fans yi yëpp ne nañ di ko nañ ko def ci jàll nañ ko def ci jàmm diggante Gambia ak Sénégal yi fi bëri nag yéen ay xam naa xool it deret yi tàng tuuti waaye nag nañ dal rek ñu xam ne. Mm. ndam li ki ko ki ko ki ko win mu ñu jox ko boroom ñëpp célébrer li moo waxoon ndami Sénégal bi la. Mm. Um, loolu la ñëw mën a dénku ñëpp uh, di gërëm uh, di la gërëm of course gërëm kenn mm. gërëm Sénégal bi ci nga xam ne nii ñooy seetaan. noo gisee Sénégal bi nga ñëwee. Ah, bi rafet na ah Sénégal baax na yàgg naa fi ñëw of course waaye uh, dëkk bi dëkki teranga comme ni ko waxee pays teranga te nit ñi nit ñu baax lañ Euh, lépp loo xam ne nii moo war suñu diggante ak ñoom ñu ngi ko def euh, muy ci mas nekk ci hôtel bi wala ci mitin bi nga xam ne moom la ñëw waaye ni ñi nga ne tamit ñoo nekk ci euh, hmm. dëkk bi ci boppam rafet te hmm. daal mu ngi fi jàmmaa ngi fi soo loolu rek la ñoo mën a wax di di hmm. gërëm sénégalais yi ci jokkale bi nga xam ne moom lañ jokkale diggante Gambie ak Sénégal mu nekk lu fi yàggal lool te ñun tamit ñu nekk tey nekk ci nguur war koo mën a gën a dooleel tamit ñuy ñëw si kanam bi tamit ñu gis njëriñ ci lu ñoo def tey a neex ci plat yi nga xam ne yaa ngi koy lekk Sénégal. Sénégal sen seen ceebu jën bi la rek. <laughs> ah monsieur le ah, jën bi la rek waaw. ah jën bi. ceebu jën bi la de ceebu jën bi la de waaw bu baax a baax parce que Gambie am nañ ko waaye Sénégal seen bos neex na UNESCO ñu ngi ko jël sax def ko bu yàggul rek <laughs> euh, you know euh, boole ko ci seen euh, food yi nga xam ne ni lekk yi nga xam ne nii moom la ñu célébré ci àdduna bi mm-hmm. so loolu lu ma wone rek mooy ceeb bi du ceebu jën bi du jox Sénégal fi mu nekk nii mm-hmm. waaye ceeb bi monde bi yëpp la àdduna bi yëpp ku nekk war na ko mën a am so rafet na trop waaw ceebu jën daal ministre moom daa faral di ko kii waaw waaw comme Gambie comme Sénégalais yi xale Gambie ni ñu buggee plaças <laughs> euh, ak. ak ak ak ewe ok. <laughs> ñooñu tamit suñ ñëwee Gambie tamit euh, Sénégal tamit lu ñu gën a euh, bëgg a lekk mooy ceeb bi. waaw parce que niñ ko toggee la rek. dëgg jërëjëf Jam dégg nga li nga xamante ni moom la ministre de sports bu Gambie wax seen diggante yéen ñaar dégg nga jàppale yi nga xamante ni jàppale na ko xoyantaan ci diggante làmb jeeg bis baak taxawaayu bis baak yëpp ban gis-gis nga ci am. waaw Djily maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu Bas caméraman di nuyu monsieur le ministre honorable Bakary Waye di ko wax mu dal ak jàmm ci Sénégal réewam la comme ni Gambie nekkee réewam tey nag dañu am contentement bu baax ci moom ndax li muy def nii du guléet nekkul ne dafa nekk ba nekk ministère rek def ko ndax wax nga ko sànq ci biir interview bi Baye Mandione Xoyantaan spécial bi moom lañ ko tuddee woon te nekkuloon Gambie boobu mu ngi États-Unis daj coono yu nekk ñëw pour fekkee bés bi. Hmm. kon jamono jii mun nañu wax ne li ko sport jaral bëri na ñu ko jaral. Hmm. nga tuddee ni drapeau mu nekk États-Unis dagg bee lépp pour ñëw fekkee bés bi yombul. Hmm. jamono boobu nekkagul ministre doon daj ci sport bi coono doon ci dugal doolem di ci dugal kattanam di dimbale ay ndaw di leen di jàppale ñuy dem bitim réew di jàng. kon bu yàlla defee mu néew ñu jox ko ministre des sports bu Gambie. Eh, jigéediwul espoir bi bi mu ñëwee ba tey gis nga làmb yokkute yu mu am. Mm-hmm. am na ci nag loo xam ne du sens mérite la. Mm-hmm. Mm, ndax nit Gambie fan lañ demee Coupe d'Afrique ñu ne ñu ne ci ayam la loolu tamit du sens mérite la nit ku nekk li na ci li ñu ne butéel bu nekk. Mm-hmm. li mu def rek loolu la couvert bi di xeeñ. dëgg la. Ah, moo tax ñun ñu gën a am fit. gën a ñeme làmb Gambie gën a ñeme làmb senegal comme ni ko ministre Matar Ba di defee fii. nekk na tamit koo xam ne koo am discipline la gis nga ko bi mu ñëwee ba léegi day fédéré di boole Matar Ba tamit ka saalika noonu kon ñaari ministre des sports yi hmm. tey bu ñu defee lu mel nii ñu leen di séntu ñoom ñaar ñu ñëw toog teew ndax lii ñun ñoom lañ ko defal hmm. ndax dañ ñëw fekk ay tournoi CEDEAO di am waaye dañ ne CEDEAO bëree door musul am lii nag mooy CEDEAO bëree door ndax bu ñu jëlee Baye Mandione boole ko roi des arènes bu Gambie hmm. ñu war a bëree combat bi Gambie la woon aller bi gis ngeen nu mu demee. Mm. retour bi ñu indiwaat ko Sénégal mooy dañ bëgg lépp yegg. Mm. ñu xam ne ñoom ñaar ñaari mbëri ñoo bokk ndey ak baay comme ni ko ministre bi waxee. Mm. diggante moom ak Matar Ba. dégg nga ko diggante aadama Barrow ak Macky Sall. kon diggante ñaari réew yi tey ku jógee Gambie. ñëw senegal dal hôtel rek yow la neex. Mm-hmm. ku jógee senegal dem Gambie dal hôtel yow la neex. Mm-hmm. ndax ay mbokk lañ ci deret ci lépp. Mm-hmm. aada jooju nañ ko continuer doxal ko. dafa feeñ ba ci làmb ji. Mm-hmm. bëre am na fa ne ci àddina waaye bëre dóor Sénégal ak Gambie rek la am loolu nag dafa am lu muy firnde. Mm-hmm. ñun nag bu yàlla dogalee ñaari réew yi meññ mm-hmm. ñu. ñëw di tëgg làmb day jaadu ñu lëkkale ñaari réew yi ci bëre dóor boobu ñoom ñaari réew yi ñu bokk. moo tax di lancer appel comme ni ko ministre bi waxee rek képp kuy jógee gàmbi nga xam ne sa réew ngay ñëw sa dëkk ngay ñëw. ñaari mbëri xoyantaan ak bàyyi ma ñoon yëpp doomu Sénégal doomu Gambie lañ. que le maire gagne. dégg naa ci làmbañam mu ne papaam am na soxna Gàmbi. kon kooku doomu Gàmbi la. xoyantaan ka saalika noonu. kon ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ngi woo supporters yëpp. ñu ñëw ci jàmm bëre ci jàmm que le maire gagne. di nuyu ministre bi nag ci acte mu def. ndax bu ñu tëggoon xoyantaan ak Baye Mandione kese. buñ ci seen tuutoon lii duñ ko tëgg. xamoon nañ ne biñ ciy dugg. Hmm. kilifay Gambie dinañ jël seen matuwaay jàppale askanu Gambie pour ñu mm. ñëw seetaan ko. Mm. ndax wax na ko sànq bu doon xoyantaan ak xooyantaan même su ko bëggee du am moyen yoo xam ne waa Gambie dinañ mën a génn ñëw seetaan si làmb waaye ministre bi bu jëlee moyen yëpp. Mm. jël acte yëpp teg. jël doole yëpp teg pour ñu mën a ñëw gungee ci xoyantaan gunge ci ko pour mu ñëw seetaan si làmb kon ñun ñuy dooleel nañ ñun suñ jëmm bopp. Mm-hmm. ndax ñun loolu lañ doon séntu ci bis bi. léegi lañ ñu jógee Gambie di ñëw dina indi mbooloo arène nationale bi dafa rëy may leen arène bi day fees di ngeen gis lu ngeen mësul gis bi ma koy wax nag lii laa séntu woon tey ministre bi teg lépp ne képp ku nekk Gambie bëgg a ñëw seetaan si làmb ji dina la jàppale nga ñëw seetaan si ko ci frie jógee Gambie aller retour loolu euh, yombul. Hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko. Hmm. lépp lu mu bëgg ci liggéeyam yàlla defal ko ko. Hmm. di nuyu Matar ba ministre des sports. mooy ñëw incha ànd ak moom. ñoom ñaari ministres yi ñu toog ñu woy hymne national bu Gambie woy bu senegal baay ma doon taxaw xoyantaan taxaw ñaari drapeau yi flirté ñu bëree que le maire gagne ndax lu mel ni dañ war di ko continuer man yàgg naa lancé appel ne combat yi bëri ñu leen di téye fii mm. ñu ko war a yóbbu Gambie Gambie bul fàtt na seen stade bi amitié yi lu mu ko ëppee bëriwul mm-hmm. événement bu ñu coow ci réew bi xaj na Gambie mm-hmm. te moom bi mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla ubbi na bunt yëpp di jàppale promoteur yi ci ay moyens ci côté yëpp. Hmm. kon pour promoteur jël fii événement yóbbu ko Gambie du doon lu jafe. Hmm. moom mu ngi nii open na pour ñëpp. Bakary Bakary ñëpp la Bakary Bakary sport bi la ndaw la. Hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm kattanal ko man kontaan naa ci moom trop. waaw di wax waa Sénégal yëpp. nañ ko séntu stade incha allah rabi moog sunu pap ministre Matar Ba. ñoom ñaar ñu toog bàyyi ma ñoon xoyantaan bëree kalameer gañ. jërëjëf di nuyu tamit sunu papa li ñu ko laay gis nga moo am solo. tey bi ñuy taxawal Baye Mandione xoyantaan suñu ne woon ñaari mbër yi xoyantaan Gambie dëkk Baye Mandione fii soo si defee yenn mooy stade bi du fees wala nit lu am ah, duñ ko taxawal waaye ngëm-ngëm ak yéene bi ñu si doon demee tey gis nga li ci feeñ tey Modou Lo ak kese feesal na arène nationale adduna bi yëpp hmm. ñu ngi xaar seen daje hmm. amagul hmm. ñu war a dajee foofu première fois muy lépp le 25 décembre. Mm. kon moo tax ndax nit lépp looy def rek def ko ngëm-ngëm ak yéene. Mm. yaakaar nañ ne incha allahu rabbi écho yu ñu jot man damay ragal waa Sénégal ñëw ci stade bi fekk lépp nekk drapeau Gambie. Ah. noonu loolu jili lu leer laa lay wax. loolu nga yaakaar. non groupe WhatsApp bu Gambie ni ñuy waajee bés bi ndax demal seetaani làmp Sénégal gratuite amul fay paas jili mm-hmm. kan moo bëgg bàyyi mën joon a xooyantaan ump la statu 45000 places dañ ko defee ci ale bi gis nga dañ ko tëj keroog mhm. ñaareel fa nekkoon yëpp bëgg nañ seetaan si làmb ji xam nu muy deme amateur yi daggoon seen biee yëpp kontaanu ñoon mhm. dañ bëgg seetaan si liy xew mhm. su ministre bi jëlee mooy yëpp teg ni képp ku bëgg a dem oto yaa ngi taxaw free la dañ fi ñu toll nii gars yi ligsa la ñuy def rek boos bu fees ñu ne bis bi fees na bu fees ñu ne bis bi fees na démb ñu ñëwoon seen cinquième bis kon fii ak combat bi fii ak samedi di nga dégg 10 bis yoo xam ne bis bu si nekk day jël 70 personnes war a départ Gambie ñëw ak ñi indi seen oto bopp. kon loolu am naa yaakaar ne suñu ñëwee xajuñu arène nationale. Gambie bu ñu yéexee Sénégal feesal stade bi de lu leer laa la wax. ñoom waa Gambie ci stade bi lañ bëgg a fanaan si. di lancé tamit appel ministre Matar Ba sunu papa. Hmm. waa Gambie yóbbante lañ ma jox ñoom ñu ngi ñëw ak force délégation comme ni ko ministre bi waxee. Hmm. suñu ñëwee ñu dimbale ñu ci daluwaay. Hmm. boo xam ne nii dinañ fa mun a dal ñoom ñëpp en masse ndax. mbooloo mu toll noonu benn hôtel attanu leen. kon ñu ngi koy lancer appel mu ubbil ñu stade amitié. Hmm. ñu yóbbu leen fa. Hmm. ñu nekk fa si sécurité. Hmm. ñëw seetaan si seen mbër supporté ko. dem si jàmm kële maire gañ xam naa ne loolu nag ministre bi ñoom ñaari kilifa yi. ñoom dinañ ci liggéey. comme moom njabootam ñooy ñëw seet si magam. dina dénk magam njabootam. loolu moom comme kàddu googu dinaa ko bàyyi ñun dañu ñu si war nañ ko def. di nuyu staff xoyantaan yëpp di nuyu staff Baye Mandione yëpp. di nuyu Matar ak waa Gambie yëpp. di baay ma Mandione ak stafam yëpp. Mm. di nuyu Père Nicolas Tafa Gueye ñëpp ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi nekk di sonn ci bis bi jëli yow Bas ñoom Lamine Seck. Mm. ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax jëli. Mm. di nuyu waa pencum làmb Gambia waa Gawja waa Fësal waa sunu làmb bépp groupe bu nekk Gambie ñu ngi lay nuyu di lancer tamit appel promoteurs yi Gambie yëpp. di leen di woo di leen di wax ne bés bi seen bés la. seen rakk ak seen mag ñoo ci fi nekk seen i mbër mooy jógee Gambie ñëw ñu gungee ko ñëw xam ne seen réew la ñu ñëw bu ñëwee nañ leen dalal ñu ànd kenn ku ci nekk man de bu ma ñëwee làmb Gambie dafa am lu may jàng. Hmm. ñoom tamit ñu ñëw fii di am lu ñuy jàng. Hmm. ndax ji di xam-xam du wees njàng du wees. dëgg la tey dëkk boo dem rek am loo suivre rek boo ñëwee di nga mën a tari. Hmm. te kon ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci làmb ñu ñëw. ñu dalal leen si jàmm ñu ànd dem ci làmb ji organiser bu ñu paree ànd ak bàyyi ma njoon a xoyantaan yëpp dem Gàmbi lu fa mënta xew ñu dem defee fa fet gi jëli jërëjëf am na solo maa lay jaajëfal bu baax jàmm dafa am benn wax bu mu wax bu am importance mooy mbooloo mi nga xam ne dañuy jugee Gàmbi di ñëw am daluwaay bi amul hôtel bu leen mën a récupérer parce que ñooñu dañoo dañoo takku macha allah. Mm. ban taxawaay nga ciy taxaw en tant que ñaari ministre yoo xamante ne war nañ ci mën a taxawaay. ak stade bi mu wax moom la bëgg. pour ñu jox leen fa. Mhm. ñu dal fa. ah waaw loolu mën nañ cee ñaan sénégalais yi comme ni ñu ko waxee. Euh, ñun ñëpp benn lañ. Hmm. tey bu gan jógee woon Sénégal dem Gambie. Hmm. ñun dinañ def li nga xam ne ni moo war pour gis ne fi ñoo toog fi ñoo dal euh, ñu jox leen ko. Hmm. te loolu tamit lañoo ñaan sénégalais yi muy autorités yi ak ñëpp ñoo xam ne ni ñoo amee management yi euh, stade bi. pour su Gambiens yi ñëwee ñu xam ne rek seen ay rakka seen ay mag euh, ñoom ñoo ñëw. ñu dalal leen ci jàmm li nga xam ne ni moo ci war loolu lañ leen di ñaan lu ko dooree ci ministre Matar Ba ba ci ñi nga xam ne ñoo amee stade bi. loolu rek lañ leen mën a wax yaakaar nañ ñi nga xam ne ñoo nekk management ni euh, euh, euh, team bi stadium ba. Mm. ñoom ak dinañ jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo jógee Gambie. pour mm. gis ne li nga xam ne ni moo war ci logistics yi ñu def ko in place pour Gambien si si ñëwee duñ sonna parce que xam naa ne mun naa am sax bés boobu noonu su bëre bi jeexee dinañ travel at delluwaat back to to soo ay.